asalaamaaleykum àdduna ñu ngi amati mbégte ak kontaan di leen nuyu naa la def seen reportage bi nga xamante ne soxal na leen soxal bépp sénégalais ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy ñaari julli yi fas yéene gis toujours ci ci réew mi di Sénégal ñu sekk population bi ak doomu adama yi ay waxtaan si loolu euh, papa maa ngi leen nuyu kilifa gi maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay di la siyaar di leen bëgge jox leen wàccuwaay yëpp rek. tur bi nan la. Omar Sarr waaw Parcelles Assainies intervent Omar Sarr Parcelles Assainies intervent euh, ñu ñëw ci li nga xamante ne gis nañu Sénégal réew mi bari nañ li ñuy ñaari yoon corté ñaari corté tey lan nga ciy wax. waaw loolu de man li ma ciy wax ñaari korité ñaari tawaski daanaka ba xamee ba léegi sax yooyu la ñuy gis ñàkkoon na fi nag daan nañ ko def par benn mais après fi mu toll nii man dama mel ni dafa damaa dégg ne diine ji dafa am ku nekk ak sa lislaam bi dafa xaajaloo daal ci kaw maanaam fa ñu waroon di booloo di wane suñu doole foofu maanaam ñun ñooy ñàkkal suñu bopp valeur. parce que am na yoo xamante ni war naa mën a ñàkk daal mais li ñu wax ah man de li ma xam mooy weer wala fanweer waaw weer wala fanweer comme nag fii lañu nekk ñun ñëpp am nañu bët tey dañuy séentu di xool bu ñu gisee weer bi mooy loolu bu fekkee nag xool nañ ba sonn gisuñu ko ñu xaar fanweer yi affaire bi daal loolu la daal gis weer woor gisoo weer nga xaar fanweer nga woor yi bi daal man loolu laa ci gis parce que lii fi ñu di war di booloo muy dëgër ñu wane suñu bopp mobiliser wu ba ñu xam ni dëgg na ñun benn lañ foofu la ñuy xaajaloowee kon nag dèjà loolu rek moom dafa xaw a doy waar daal waaw doy na waar trop trop trop trop ci réew mi nga xamante ni waa dañ ko war a kennal daal waaw waaw waaw waaw parce que yàlla moom waaw lenn rek la woote mooy maanaam ñu nekk benn waaw dañoo bind nag dañoo bind ñu tas ñu war a xamante daal doon benn daal waaw di xàccee xàccandoo di dóorandoo waaw affaire bi daal man foofu laa ko gisee daal. waaw kay jërëjëf ñu ngi yem ba tey waaw fii la waree fii la waree parce que gis nga dëkk bi. Ah waaw. man daal li may wax comme que génn nañ ci Covid bi. Mm-hmm. waaw maanaam sax duñ ne génn nañ ci. mais comme daal waa fagaro yi ñu doon def ak ni ñu doon ni ñu ni ko jàppee woon daal ba nga xam ne mi ngi wàññeeku. waaw ñu gën a bañ a bàyyi loxo rek. ñu gën jàpp rek ba mu ne mes waaw ba mu mes dem dem ca géej ga. dal jën yi ñu jàpp leen. ndax réew mi neex. <laughs> yéen maa ngi lay nuyu kilifa ñu ngi lay ziar baax a baax a baax alhamdulilah. tribunal la. Abdou Khoudous Wade la. Abdou Khoudous. Euh, réew mi nga xamante ne mooy Sénégal safoon nañuy korité ñaari korité mu nekk loo xamante ne ñaaw ci réew tey ñoo ko gisee. waaw ah, lu doy waar loo xamante ni euh, kenn du ko rafetlu parce que Sénégal nekk na réew moo xamante ni rek réew jullit la te it euh, nekku nekkul réew mu mag moo xamante ni tey ji ay ñaari koriteek ñaari koor euh, war na fee mën a am ndaxte Sénégal Sénégal la Burkina Burkina la Mali Mali la. Sénégal fii boo fi séntuwee weer su fekkente ne feeñ na fi war nga ko mën a gis war war nañ koo mën a gis parce que am na euh, barab yu bari yoo xamante ne war nañ fa mën a séntu gis ko géej gaa ngi ni boo fi taxawee bu fekkente ne weer bi génn na boo xoolee di ko gis kon jarul ñuy profité di julli tey di def di dépendre ci ay Niger ak ay Côte d'Ivoire euh, te màkk bi nga xamante ni sax euh, souvent dañ daan wóorandoo ak ñoom tey ji wóoriwul ak euh, yeneen réew yu mag yoo xamante ne tey jii xam nañ leen tey wóoriwunu kon yaakaar naa su fekkonte ni dañuy xool ci côté boobu rek màkk kon mën naa dépendre ci Mali ndax Mali dañ ne weer feeñ na fa euh, Niger weer feeñ na fa Côte d'Ivoire weer feeñ na fa kon màkk mënoon naa dépendre ci ñooñu wari mais kon xam nga ne luy dëgg rek mooy dëgg lu dul dëgg du dëgg kon nag am na yoo xamante ni mën na ñàkk parce que réew mi ñu neen la réew mi réewul kon euh, war nañ man di Euh, lalu lépp rek teg ko ci diine ak di bañ a euh, beddeeku di créer loo xamante ni mën na ñàkk daal wax dëgg yàlla loolu moo ci nekk jërëjëf. ah ñu gis tamit daal ah, mooy réew mi Sénégal di safoo di def li nga xamante mooy ñaari korité ah, tey loo gisee loolu. waaw ñaari korité de am na année bu mu fi jógee woon année boo xam ne Seydi Muxtaar bi mu fi nekkee am na année boo xam ne ñun ñoo bokkoon. korité bi benn. ni ko sëñ Seydi Muxtaar bëggee woon di ko doxee sëñ Muntaxa Bachir yàlla na fi yàgg te moom it noonu la koy doxee ndax ku ne xam na ne sëñ Muntaxa social la. Mhm. dafa boot ñëpp. kenn ku ne loo yëg yëg na ko loo bëgg bëgg na ko loo bañ bëgg bañ na ko jàmmi Sénégal ak àdduna bi yëpp la bëgg dafa boot ñëpp uuf ñëpp noonu la mel ci kër Alaaji Malick noonu la mel ci kër Baye Niass noonu la mel ci kër Baye la mel fépp kon nañ jéem a boole suñu xol yi te am benn ngëm-ngëm diine ji mënuñ ko xar ñaar benn diine la rek benn diine moo fi am ñun ñëpp yàlla lañ gëm Seydina Mouhamed mooy suñu yonent ndax mooy dernier yonent bi mujj ñëw moom la ñu yàlla booleel moom lañ gëm kon nañ teg li ñuy def ci yoon kii di wax lii da sëñ Touba nag neewoon na danañ dem ba jamono dina jaxasoo bu ñu yeggee ci jamono jaxasoo jooju weer mbaa fanweer ci foofu nag lañ toll fi mu ne weer rek mbaa woo fanweer loolu lañ toll ñu delloo suñu xol yi jéem a ànd déggoo ñu waa commission bi ñu doon benn benn say jàppandoo bàyyeendoo bu ko defee lu ñu bëgg dinañ mën a bu ñooñu rek ñoo mën a boole nit ñi mais tant que kii ngi wax lii kii di wax lii kii di wax lii déggoo du mën a am léegi nag nit ñi ñoo war a arrière xool seen bopp léegi nag delloo lépp suñu borom te xam ne moo ko moom. muy weer mbaa fanweer. jërëjëf asalaamaaleykum mbokk mi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. waaw ah, jërëjëf bi. man Baye Dame Tambédou la. Baye Dame Baye Dame Tambédou waaw chanteur compositeur waaw dëkk parcelle di def di def musique. waaw. ah Baye Dame Tambadou du ñu fekk tey fi nga xamante ne mooy Parcelles Assainies ah ñu amati mbégte jàkkaarloo ak yéen ah, laaj leen li nga xamante ne muy jëm si ñaari côté di réew mi Sénégal baaxoon na fi di fi am lu bëree bëree bëri en tant que sénégalais ah ban nga ci am. waaw man moom rafetlu ma ko loolu moom rafetlu ma ko comme ni ko sama xarit bi waxee léegi rek Omar Sarr ni mu ko waxee loolu moom kenn mënu ko rafetlu ndax ay jurit dañuy loolu di dóorandoo loolu mooy politique politique. mooy dañoo war a booloo lii nag mi ngi bëgg a yàgg ba ñu juddoo ba léegi man ba ma juddoo ba léegi daanaka maa ngi ko fiy gis wàññeekoon na comme ne sama xarit bi di waxoo wàññeekoon fi lool waaye dafa mel dafa dellusiwaat te li nga fi indi nag mooy dafa mel dañ naan am na dama amee ibaadu ñëpp ay ibaadu lañ ah, ibaadu moom daanaka kàllaama bi lañ lañu am fi ñu ngi ko féetalee waaye ñëpp ay ibaadu lañ waaye dafa am ñoo xam ne dañ ne ñooy ibaadu yi ibaadu yi ñoom ñoo daanaka problème yi foofu lay nekk ñun ñoo àndatut ak ñoom foofu la affaire bi nekkee te loolu war na mën a ñàkk nekk benn ñun ñëpp daal man sama gis-gis daal dëgg yàlla noonu daal xaju fi Sénégal rëy na rëyut rëyut il la daanaka ba ma ne xam ne Sénégal rëy lu ndaw la pourquoi ba war ñoo ma nekk benn am amandoo doole doole am doole boo xam ne ñoo ko bokkandoo ñëpp di tegandoo di dóorandoo surtout ay jullit war ñu mën nekk waru a am séparation quoi pour man sama gis-gis laa wax waru mën a am séparation parce que réunion xam nga politique la dañu war bokk day bokk bàyyi sama gis-gis laay wax quoi xam nga man nag rafetlu ma ko nag ñaari korité moom rafetlu ma ko lu ma ko mas a rafetlu bu doon sama sago daal ñuy defandoo di def di defandoo lépp moo ma gënal daal sincèrement moo ma gënal. jërëjëf Baye Dame ok. asalaamaaleykum maa ngi maa ngi lay fay. dalal la. man Fatou Kébé laa tudd. Fatou Kébé jàppale caméra yi nga xool gars yi bu baax Fatou euh, ñu gis euh, réew mi Sénégal dañoo baaxoo di korité ñaari korité ah, tey noo gisee loolu. ah ñaari korité xéwal rek la jullit tey ak suba yëpp benn la xéwal rek la noos la ñaari noos la laa ci gis xéwal daal la laa gis ñaan daal yàlla may ñu gudd fan ak rek waaw xéwal daal laa ci gis man loolu mooy sama xalaat. xaw ma ah? Ah, tey xéwal la benn tey benn suba waaw xéwal daal laa gis ñaan gi gën a xéwale rek yokk waaw yokk bañ ko rek waaw tey kon lan ngay wax ñi nga xamante ne tey ñoom ko contre nañu ñaari korité yi nga xam si réew mi nga parce que bëgguñu parce que neen dañ koy ñaawlu ah waaw loolu nag àdduna moo baaxoo noonu nag ku sañoon moom benn julli moom moom la ñuy def waaye yàlla moom lu mu dogal kenn mujj dara xëy na loolu la yàlla dogal waaw waaw ñaari julli daal moom benn julli daal moo gënoon moom bu ñu sañoon moom ñu def ko benn man nag bu ñu sañoon ko benn waaye xëy na xëy na loolu la yàlla dogal ah, koy sant yàlla rek xam na loolu la yàlla dogal daal. salaamaaleykum maa ngi lay nuyu kilifa ñu ngi lay fay ku baax ki. di la bi naan la. man gën koo xam ci baax yaay bu Serigne Saliou. waaw mm-hmm. ah, Birane Dieng ñu euh, gis réew mi nga xamante ne mooy Sénégal la ñu safoo di korité ñaari korité ah, tey en tant que sénégalais ban réaction nga ci am. waaw gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yeneen bi sant suñuy ñaari waajur di nuyu sëriñ Mouhamadou Mountakha Bachirou xalifa kullu général Mouride mu yàgg fi loolu tànd ak wér waaw affaire yi moom man de moom rafetlu moom lu moom defuma ko moom euh, parce que Sénégal bu benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te ñun ñëpp ay julliti yàlla leen ñun ñëpp ay julliti yàlla leen donte euh, ñi ngi woor wari wari ndor lañ war a def mais ñi ñu wooyee moom ñi ñu wax Ibadou Rahman yi moom ñi ñu la ñu wooyee moom mën naa wax ne li yàq ci dëkk bi ñoom ñu ko yàq ci leen bokk mais moom wax du neex sama dëgg moom dëgg man dëgg ma yitteel waaw man xooluma ko ci sant xooluma ko njëgal man dëgg ji laay wax Ibadou Rahman ñoo yàq dëkk bi ñoom cundum ñoo yàq dëkk bi parce que ñoom rek ñoo fi ñëw gisuñu weer ñu wor gisuñu weer ñu wori xoolal daaw korite daaw ñoom ñoo njëkk a korite te ñoom dañ na ci màkk la ñu rey te daaw ñoom ñoo njëkk a korite màkk gis na même tey sax ku màkk wariwut voilà loolu moo tax ma wax la ko gis nga mu ngi neen yaa ngi yaa ngi koy wax ni tey sax màkk warut te ñoom ñi ne ci màkk la ñu roy sunna la ñuy dem sunnatul rasul mais kon ñoom kon ñoom kan la ñu roy parce que ñun màkk ñun moom la ci moom màkk la njàngale màkk la ñu roy màkk ñoom ñoo ñu war a ndor ak màkk ñoom ñu njëkk a wari màkk xam nga loolu xel nanguwu ko ñoom daal li leen neex la ñuy def mais man de moom wax dëgg yàlla moom ànduma ci tey ànduma ci ëllëg te képp ku bokk ci man wala képp koo xam ne moom am naa ci moom benn dogal moom dinaa la wax na li boo ko defee tamit da nga def lu la neex rek waaye li nga def tegoo ko fenn waaw loolu moom teguñ ko fen moom. teguñ ko maa ngi leen nuyu kilifa gi. waaw maa ngi lay fay. waaw jërëjëf laaj tur bi nan la. man maa ngi tudd Mounir Balde. Mounir Balde Balde ñu gis li nga xamante ne mooy réew mi Sénégal. korité ñaari korité tey sa gis-gis tey ci loolu xanaa di ko mettitlu di ko mettitlu adduna bi kan nga gis mu julli tey ñu ne Sénégal julli na lu tax ñu ñuy repérer ci ay Mali ay ay ay Burkina Faso ak ay Niger te ñu am suñuy kilifa fii ci Sénégal mën nañu am fi gën ñoom mën nañu Burkina mën nañu am ku gën sëñ Mountakha Mbacké sëñ Babacar Sy ak ñeneen ak ñeneen ñuy déglu ñeneen bàyyi ñooñu vraiment daf ma metti man ñaari julli yi daf ma metti suñu Sénégal dañu xoolaat suñu bopp bu ay nit yu wàlliyaan ñëw di ñu di du yoon am nañu ay kilifa dañuy xool suñuy kilifa déglu suñuy kilifa dañ ñuy peser buñ nangu ñu peser ñu. loolu la amoon lu ma ci wax daal dafa ma métti nag dafa ma metti waaw parce que du yoon ñuy julli ñaari julli Sénégal gi benn Sénégal bi li ma si gën a métti nag mooy ñuy repérer ci ay Mali ay Burkina Faso ay Niger Afrique nga dégg foofu am jihadiste su su dul si ñooñu c'est honteux maa nag.